Euh, bu ñuy xayma ci ren li nga xam ne moom la ñu jot a jël ci koppar dugal ko ci ay subventions ci wàllu énergie xayma nañu lu tollu ci 500 milliards ci francs fa léegi nag bu fekkee dañuy xayma ci ñetti at yu weesu li ñu dugal ci koppar ci wàllu subvention ci wàllu énergie ñu ngi ci 1800 milliards ci francs CFA xam ngeen ni loolu diis na lool 1800 milliards ci francs fa ci ay subventions yoo xam ne duñu si ciblé ñi nga xam ne ñoom ñoo ko soxla loolu dama jàpp ni lu diis la lool ci économie ci budget bu réewu Sénégal war nañu bàyyi xel ci mbir moomu moo tax euh, dañuy fàttali ne am na ay recommandations yoo xam ne yàgg nañ ko fi wax dañu war a bàyyi xel fi nga xam ne foofu lañu war a dugal subvention yooyu foofu ñoo gën a jubanti mbir mi loolu yàgg na nekk discours bi ñu yàgg yëkkati. jëmle ko ci kilifa mooy nii dafa war a nekk ay subvention ciblée dafa am ñi ko soxla ñooñu la ñu war a jox subvention yooyu damay jox rek benn exemple FMI soxlawul ay subvention soxlawul bénéficier ci yooyu la subvention subventions ils